kii tàyyi la julli ba ñu rey ko nag nu wax ne du tee ñu jullee ko moom ndax julli la dañoo bëgg waaju baax ak mbooloo bañ faa teew ca rob ba téere dañoo bëgg rek ñu woyofal rob ba waaju baax wala ku siiw ji ak mbaax bañ faa teew bu ko defee rek buñ woyofale rob ba dana tax ñu bare bari moytoo def lu mel li mu def bu ëllëgee waaye buñ ko fonkee waaju baax teew fa mbooloo mu bari fa ñu fonk ko day mel ne kon deful dara keneen daal di sawar a def la mu defoon wal xabru bàmmeel ba laa yut masu diifu ko maasaleeg suuf mooy deesu ko jéem a làq mel ne buñ ko dee suul ñu suul rek ba suuf si mëkk ñu daal di bàyyi bañ koo jal ca kaw déedéet ah kay nañ ko jal ba ca kaw ba li fi nekk yu san na mu def na ko yëkkati mbaa def na ko jegéenal loolu nekk ci ndoddum gëléem ji moo tudd ab jegéen bu ñu nee yu san na mu def na ko jegéenal maanaam mooy doomi aadama buñ ko suulee dañ koy ormaal jal ko ba mu dem ca kaw te digg ba gën a yëkkatiku pegg ya loolu moo tudd jegéenal buñ ko jalee ba noppi nag fépp maase loolu moo tudd terrasse lu ci nekk daañu ko wax ci bàmmeelu doomi aadama waaye mel na ne jegéenal gi maanaam digg ba gën a yëkkatiku pegg ya lañ gën a taamu mu ne nag ki nga xam ne daa tàyyee la julli ba ñu rey ko du tee ñu yëkkati bàmmeelam ba ci kaw benn ñu jegéenal ko mooy digg ba gën a yëkkatiku pegg ya mbaa ñu teraas ko fépp maasi waaye waaye duñu jéem a làq bàmmeelam déedéet ndax ca dëgg-dëgg ab jullit la ak njullitam moo rafetul rek mooy li annahu ngir naka moom muslimun ab jullit la bilaa xilaafin ci lu dul benn wuute ca dëgg-dëgg jullit la ak njullitam moo rafetul rek kazaaliki ni xadaa la attee alqaadi aji atte ja salilul arabi kay doomi arab ya rahimahu yàlla na ko yërëm almawla buur ba al mulilul arabi kay aji joxe aajo ja aji atta ja xëy na caa jublu al imaamul xawfi waaye lii moom moo wér ci yoonu malik ci ku tàyyee la julli wa taariku tuhri aji bàyyi laab bi xëyri xudrin ci lul ngànt yuqtalu def na ko rey moom it xaddan reyub jëtan duuna xatlil kufri ci lu reyu kéefër ba tey nee na ku nanguwuta laab ñu ne ko lu tax mu ne man damaa taayel daal moo tax dañuy jàpp ne kon mook taayele julli ñoo yemoo ndax bu ñu nee julli balaa baax laab da ko jiitu te moom nanguwuta laab day mel ne kon daa taayele julli rek kon dañ koy digal laab buñ ko toppee topp nag mu gaat nanguwuta deltu gannaaw ñu rey ko reyu gétam mooy des na ko sang sang ko jullee ko ni nga xewoon ci gannaaw rek ci ku taayele julli ba ñu rey ko id ngir asalaatu julli laata timm du mën a mat abadan mukk illaa bihi ndare ci moom laab kon badaa feeñ na moom laab bi daaga ci loolee waajiban mbir mu muy aji wax ne buñ ne julli mënta ñàkk te balaa baax faawu laab da koo jiitu kon ku gàntu laab rek ci dëgg-dëgg da ngaa gàntu julli moo tax na kon ku taayee la laab moo ku taayee la julli ñooy moo atte ba tey nag ku weddi waru laab moo ku weddi waru julli ñooy moo buñ ko toppee topp nanguwut a tuub dañ koy jàppe ku murtat may ko ñetti fan bu nanguwut a tuub ñu rey ko rey képp faslun li ab dog la fil xaddi ci ñaaxe ñaaxe mooy soññe al ijtihaadi ci farlu fi tamyiisi ci ràññeele baynal faraidi diggante farata ya wa sunani ak sunna ya wa fi adamil xufooli ak ci ñàkk a sàggan xan xaa walis ñoom donc bi ngay bëgg a dugg dara ci soññ bu baax a baax nga góorgóorlu ba xàmmee say farataak say sunna te bañ caa sàggan xat axbara xibaar na alxawfiyu al imaamul xawfiyu rahmatul rahimi yërmande yàlla mi aji bar yërmande àll yàlla nekk ci moom xibaar na an suyoox yi jële ca sëriñam sa dawil xoloomi ñetti waroomi xam-xam bi ànd man ci naka ka nga xam ne daxala tàbbi na fi salaati ci julli wa jaate mu dikke bi xaa ci julli ga fii ahsanil xay aat ci gën jaarafeti melo ya bi an yu salliye ci mu jullee kamallaahu naka nga xamee ne yàlla amara diglee na bihi ci noonee subhaanahu sorilal naa ko lépp leelul ci moom xalaa wasfin ci aw melo dahara woo feeñ na wa akmala te mu matal ar ruko haruko wa sujud ak sujud wa akmala te mu matal al qiyam taxaway ba wal qohor ak jotaay ba wala mi yakun te nekut tarika shay indi aji bayyi dara xat jalalul feñ na min ha bok ci julli ga al imamul hafi neena jëlé na ci ay sëriñam ñu wax ne ko xamne julli nga na nga wara julli nga xamne ku xol na nga julli dal mom du ca xébat dara dara ndax ruko yi mat na sujood yi mat na taxawaay jotaay yépp rek lépp lépp mat na daal jullee na nañu santaane ku ne jullee waaye nag xoolal leemu ca teg muy wasu ila te laajeef ko baax lan iftiraax ci gannaaw noppi ga xamma walis la nga xam ne laxaa ñel na julli minal faraid ci ay farata wamaag la nga xam ne laxaa ñel na julli mina sunani ci ay sunna indal xolama fooy xam ña wa hukmiha ak atib juliga hal ndax ya mom mafrodatun luñu faratal la aw man dobat wala luñu sopp la aw sunnat wala sunna la fi ma la nga xamne raw net nañ ko falam yakun te nekut li arifu di xam mi ma la nga xamne su ila lajef nako ko shay an dara wa qala mu wax rek lil lazi ñal nga xamne qad sa'ala laj nako ne ko man kat afa halu dana def rek kama ra'aytu nima gisee annaasa nit ña yafxaloona ñi def xiina naasu ci waxtu nga xamee nit ña yaa bu doona danañu jaamu nee na ku mel nii nga xam ne jullee na nañ war a jullee ci zahir moom doo ca xebat dara waaye nag bu noppi woon nga laaj ko ne ko waaw julli gi lu ciy farata lu ciy sunna julli gi ci boppam sax luy àtteem ndax dañ koo farataal ci yow mënoo koo ñàkk def am dañ koo sopp ci yow am day sunna boko laaje ni yi du ci xam la day wax rek man daal gis naa bu waxtu julli jotee nit ñi di jullee nii ma def noonu rek waaye nag xàmmewuma ci ay farataak ay sunaak ay atteeg dara dara julli gu mel ni luy atteem julli goo xam ne kooku mën na koo jullee nañ ko santaane waaye taxul nag mu xàmmee ca farataak sunaak dara kooku nee na xadd ba talat yàqu na salaatuhoo julleem ga laakin waaye jalaa feeñ na fii xaaj julli googu khilaful ulama yi wuté way xamña wuté way xamña al fudala ñi way gën ñena xaw fi yok ay sëriñam dañuy wax ne julli gu mel non du baax mu ni waye nak julli gogu da am wuté am nañu ne baax na kay ndax yoonte bi dañe won rek sallu kamara aytumuni usalli julli leen rek ngeen ma gisee may julle kon nak ku julle dañu wara julle sa jaan wacc na ñoo loñu sukkandiko xaw fi nak mom day wax ne mok ay sëriñam ku julli te xamul farata ya sunna ya atay dal jullem moko julli wutayam julli nga du bax motax mu ne fa sheikhuna sunu serigne al hawfi te moy hawfi qala wax na ne innaha naka julli gogu batilatun aji yaqula wa habate musikal ci dan lol sha'naha birum julli goge al imam al hawfi mom day wax ni gogu julli baxut sikal na julli gogu lol lol dal wa mislu zakem kila fi hukmi ci atay فيما جل nga xamne akhbar khibar nako mom xaw fi man ka nga xamne qad tawadda japp na wudan am japp zahara mom feñ na hala atam bi hayatin ci gën jaamati melo wa akmalin ak gën jaamat bila siyadatin ci ludul dolli wa naqsin ak wañi yen jeli kok dana feñ walaysa yadri kedet muy xam min jamihi zaaka ci mboolem loolee faridatan farata aw sunnatan wala sunna hunaaka foofee fa innahoo naka kookee xadasuhoo tojam ma qad baqee des na alayhi war ko mitdal janaaba ci kem janaaba ja fa iyan na nga wattu kon xaw fii nee na ku jàpp nañu war a jàppee lépp mat na yokkut wàññiwut waaye taxul nag mu xàmmee farata ak sunna ya ba tey bu jàppee waagal day mel ne ku jàppagul rek jàpp ma dugg moom daal nee na ku def nii xam yow farata ak sunna toj ma taxan ngay jàpp day mel ne ba tey mi ngay yow jàppagoo sangu janaaba it noonu la nee na ku sangu farata niñ ko diglee te taxul nga xàmmee farata ak sunna ya ba sangoo mu nopp day mel ne janaaba jël taxoon di sangu ba tey mi ngay yow tagguwu te yow wa ba tarate yàqu ne salaatu ko juleem nga laa tuqbal def ko nangu ba li fi nekk huwa moom yafu hal dana def fi jamihi ci mbolé seen isman bakar te xaasin aji mooy la itam li rabbihi ñeel boroomam wali rasuli ak ñeel yonante ba alayhi yàlla na doole nekk ci moom xayru salawaatil iidi gën ji terali kilifa ga waxaal te mu wax ni sax inna kulla shay nak mépp mbir yastur moom dana bàyyikoo minta ci lii mina taaxaatu ci xeet topp yàlla yi foofu moom xadaru neen rek la waaw moom daal nee na muy julli muy jàpp muy sangu farata ñoo yemoo fekkee daal kooku fexewul ba xàmmee farata yaag sunu yaag atte ya su defee ba àggal day mel ni ku deful rek te loolu nee na kat du yooyu dong mboolem xeetu jaamu yàlla yi ñoo yemoo gépp topp yàlla goy def te xamu atte yi rek boo defee ba àggal du ko tax a baax mook nee na yam loolu la xaw fi wax waxaale wax na nag baax dun lenn ci way xam ne inna man naka koo xam ne xadir tasala sangu na aw xat tawadda wala mu jàpp bilaa naqsin ci lu ak wàññi xasala goog am na waxat na waate yéeni woon na i ndabbati daayil xusli ba tàmbali cangaay la aw fi mu doy wala ci njàpp ma ne ànd hoo naka moom zoo fi alima boroomuk def la la nga xam ne wala zoo fi alima boroomuk def la maa la nga xam ne farata farataal na ko allahu yàlla sa daakal fi xun kon joojee jëf saxawir na wa ànd hoo ak naka moom yu si woo dana ko doy xal a sax yi ci wax ja gën a wér xalal a sax yi ci wax ja gën a wér suma salaatu foo topp juleem nga saxihatul aji wér la isa nawaa ndeem yéene na adaa fardi rabbihi jox faratay boromam ba isan boobee walaysa da ismin te dér mi borom bàkkaar wala xisiyaan du caagenug mooy li xadamil bax si ngir ñàkk gëstu ga waxal itixaani ànd ak xereña ga mu ne ñeen ñi nee nañu ku sangoo na nga war a sangoo mbaa nga jàppe na nga war a jàppe rek sa jaan wàcc na ñàkk nga ñàkk xam ne farata ak sunna du tee boo jullee julli ga baax te amoo bàkkaar ca loola muyoo yàlla te xam nga xaw fii moom daa waxoon ne li muy def lépp bàkkaar la te li muy def lépp ak mooy la te dara du ca baax ñu ne ah kay la mu def lépp baax na bu jullee itam julli ga wér dagam jàpp na na war a jàppee sangoo na war a sangoo rek bu jullee rek julli ga wér gaa ñàkk gaa gëstu ba xàmmee farata ak sunna tax ñu ne ko am nga bàkkaar mbaa mooy nga yàlla déedéet ñu leen waaw xanaa kon yéen da ngeen a weddi li xaw fi wax ñu ne déedéet noo bokk ay wax amal la si ndaal la nga xam ne xaala wax na ko al imaamu ilimaan ba al xaw fi te moo di am xaw fi radiya yàlla na gërëm xam walis ko allahu yàlla yow man xaw fi ci bisub ragal ba fa daaka loolee tahdirun ak xuppe la wa taxwiful xibaadi ak ragal loo jaami yàlla yi al xaafiliin ña di way sàggan al jaahiliina tey way réer kal jamaat di mel na jamaat ñu ne noo xaw fii noo bokk lu ñu wax xaw fii ba mu ne ku jàpp mbaa nga julli mbaa nga sangu te xamoo àtte ba la nga def du baax da ko wax ngir xuppaate rek daa bëgg mboolem ñi nga xam ne ñoo xaw a umpali seen mbiri diine ñu taxaw temm ci xam ko bu baax a baax ndax bu lenee boo xamul boo defee du baax da nga taxaw temm ci jéem a xam leen loolu lañ xaw fii jubloo waaye jubluwul sax dëgg-dëgg ne ku xamiwul farata ak sunna mbaa àtte boo sangoo du baax mbaa boo jullee du baax mbaa boo jàppee du baax li ko yàkkoone ngir na nekk rek almar u ci am sa zajtihaad di boroomu farlu fii amri diini yi ci mbirum diineem ja bilaa inaad ci lu dëng ne daa bëggan rek kenn ku nekk farlu bu baax a baax ba xam sa mbirum diine bu wér a wér bañ caa tañaxu di wéy jasaahu yàlla na ko fay bul jëlaali borom màgg gi xayran aw yiw wa nafax yàlla na jariñ jami xanaa mboole sunu bi ci dara jaam wa dafa te yàlla na jëñ ci dara jaam ba tey bor naa sunu lor fa ñaan rek yàlla fay ko moom xaw fi aw yiw te jariñ nu ci barkeem fegal nu lor tam ci barkeem faslun li ab dog la fii faraidul wudu yi ci faratay njàpp faraidul wudu yi faratay njàpp fil madhkur ci lañu tudd xaraduha seenub lim sàpp juróom ñaar la xal mashhur ci lañu siiwee neen wax ji gën a siiw daal faratay njàpp moom juróom ñaar la ni yetu naa mooy sunu yéene yéene mooy booy raxas sa kanam raxas bu njëkk ba fa ngay teewloo yéene ji man ngaa yéene rek joox faratay njàpp mi ndax yàllaa ko farataal ci yow bu la neexee yéene yëkkati am toj bu la neexee yéene dagan loo julli mbaa leneen lu mel ne julli waxas du naa ak suñu raxas wacc xan kanam waye dan ak loxo raxas kanam ci boppam farata la mooy farata ñaareel bi boo raxasee raxas bu njëkk bi tam daj te doy nag farata jàngoog ba ci topp nga neel la bu fekkee bu njëkk bi doyut waaye bu ñaar ba mu dikkee daal nay doy batay kon bu ñettel bu ngeenel lay doon raxas bo raxas dal dem daj te doy rek ba ca top ngeenel lay doon raxas kanam nak farata la ba noppé jall ci loxo itam raxas loxo yi farata la ba ca cionc la te nga ëmb ko tuuti moom cionc la ndax yamale ci kese ba jafe waaye moom it noonu la boo raxasee benn yoon tam daj te doy rek farata jàngoo ko ba ca teguwaat nga neen la taxas boo raxas te dajut nag mbaa doyut nag faaw ba ca topp du mën a ñàkk boo baax ndaxaa nekkal seen gannaaw fawrun gaaw dañ koy firi gaaw rek waaye mooy susalee maanaam loo def tegtal ci topp rek ba ba ngay noppi dañuy bañ nga tàmbalee jàpp mel ni ko raxas sa kanam toog di waxtaan mbaa ngay def yeneen soxla te tay ko noppi nag bëgg a jàll loolu boo ko defee mu yàqu bu fekkee fàttee tax moom du ko tee baax waaye bu fekkee yaa ko tey moom bu yàgg rek mu yàqu ni bu la yàlla bindee yéex moom sam jàpp yéex du wàññi dara ndegam sosale nga rek baax na wadal kun akuk rag xad waral googu rot na bomb gi ba tey farata la maanaam boo xëppee ndox mi rek bàyyi te bomboo ko du baax wa masura sin ak masa bopp masa bopp bi farata la waaye nag da ngay dem dellu si te dem bi mooy nekk farata wañar ko bi sunna lay doon summa ngaslu rijli top raxas tank ba sabihu ha moy ak juroom ñaaril seen kama ata naka mu dikke fi naqali ca toxal ga bu ne raxas tank rek dana yóbbaal ñaar tank ñëpp tank bu ñu nekk nga raxas ko ba ëmb dojar ya tuuti loolu farata la kon booy wàññi farata yi ngay wax yéene muy benn raxas kanam muy ñaar raxas loxo yi ba ëmb cooc ya tuuti muy ñett masa bopp muy ñeent raxas tànk muy juróom li ñuy wax sësale loo noppi tegtal ci topp loo noppi tegtal ci topp ba keroog muy noppi muy juróom benn ak bomb ngay bomb nag boo sottee ndox mi muy juróom ñaar loolu ma faslu li ab dog la fii suna ni ci ay sunaam suna nu sunaam ya to xaddu def na leen lim sabaxan ñu juróom ñaar mislal fara yi di kem farata ya kama xad waral naka mu rote xani si yoxi bàyyi ko ci sëriñ sa waaw nee na sunnay njàpp ba tey juróom-ñaar la ci ni ko ñenn ci sëriñ si waxee waaye juróom-ñett yi nag moom siiw na juróom-ñett sax nga jàngoon ci téer yi nga weesu ni ki tasawudi si xaar ix si raxasal yadday ko sa yaari loxo booy tàmbalee njàpp nga raxas loxo yi ba fi ngay takk jara bu dee jigéen mbaa ab lam bu dee jigéen mbaa boog fi ngay takk montar bu dee góor taxas loxo yi ñetti yoon teewul nag boo raxasee benn yoon rek sunna si am na kon booy jàpp raxas loxo yi ñetti yoon noonu sunna la mab mib na nga galaxndiku galaxndiku sunna la istan shiq na nga saraxndiku saraxndiku sunna la itan boobee wala tam sax te nga masa al ut nay ni ñaari noppi ña masa noppi sunna la wastan sir te nga fiiru kasaani ki nii fiiru ba tey sunna la daa sori torox ni ko waaye moo sës ci moom wa saddi san na nga juróom benneele bi raddi masi rasi ci delloo masa bopp ba mu ratti ban mbir mu ngay aji toftale yam dax ka kon tagg la ahlu dar si ñooñ jàng maanaam booy wàññi sunna yi njàpp da ngay wax raxas loxo yi ci tikku jara yi benn galax ndiku muy ñaar sarax ndiku muy ñett fiiru muy ñeent delloo masa bopp bi muy juróom masa nopp yi muy juróom benn toftale farata yi ñu suñu borom wax ne taxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxoo bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayn noonu ko alxuraan tegalee waaw nga xam ne raxas kanam moo jiitu loxo yi topp ci masa ba ba topp ci tànk yu mujj noonu nga tegalee ko noonu ba tey loolu sunna la mu juróom-ñaar benn nag la wañaale wut fii te daa ko wañaale mooy yeesal ndox mi ci bala ngaa masa nopp yi xam nga dañ ne woon as ndox mi yees def ko ci baaraam yi ngay masaayo nopp yi bala ngaa masa nopp yi sunna la loolu nag boo ko ñëwaale mu juróom-ñett boo ko ñëwaale nag mu juróom-ñaar nii faidatun lii njëriñ la wa fil hadis nekk na ci hadis ànd man naka ka nga xam ne xadd xaala wax na ba'da tuhrihi ci gannaaw laabam nga ashhadu an ashhadu an ila tamaami ba ca mat ga futteet kon ubbeef la ñeel ko idan boobee abwaabu jannat bunti ajana li kay ma yan fusa ngir mu wéy maa ngir mu dugg yadxul dana tàbbee min ayihinna ca bu mu ci ñoom sha soob na ko walakin waaye xul fuhum seen wuute ñoom borom xam-xam yi in jalaa feeñ na fi zaman fatxi jamono ubbi ga nee na luy njariñ la lu mat a xam addis ba daa wax ne soo jàppee nañ la ko digale nga xam ne farata yi ak sunu yi ngëneel yi ñëpp yëpp ñëw nañ nga yëkkat say bët xool kaw jëm ci asamaan donte fa nga nekk sax mën laa seen asamaan mel na ci biir tabax bii nga daal di wax ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kon ñu ubbil la mboolem juróom-ñetti bunti àjjana yi te bu la te bu la ca neex ngay dugge li borom xam-xam yi wute nag mooy kañ kañ dañ la koy ubbil waaye loolu amu ci solo ndegam daañu la ko ubbil rek moom wuuteeg borom xam-xam yi ci waxtu ubbi ga amu ci solo fa ma yuri du ko namm tartiibaxoo ak toftaleem moom jàpp bi ahsani tarattubin ci gën jaa rafet ak toftaloo fi alan ci jëf bi nazmin ci way xasani wu aji rafet kon day fa xayru hay atil wudoo yi ngën ji melow njàpp an xasala moo di bu raxasee naawin aji yéene jàpp yaddan loxo dil ko waxi ba ca tikku jaraba jiiman yett yoon xadd xasala boobu am na soo bëggee ñu waxal la kuy jàpp na muy tegalee njàpp ma te waxe la ko ci way wu rafet nas bu rafet kon déggal nii mooy nga tàmbali raxas sa ñaari loxo ba ci tikku jara yi ñetti yoon li ci gën nag mooy da ngay ber loxo bu ne raxas ko ñetti yoon mooy da ngay ber loxom day joor raxas la tàmbalee baaraam ya ba fa ngay takk montor ba fa ngay takk jara bu dee jigéen def ko bu càmmoñ mu juróom benn yoon teew nag mën ngaa boole yaari loxo yépp ba tey raxas ñetti yoon ndaxam sax boo boolee yépp rek ñaari loxo yi raxas benn yoon du tee sunna si am na kon daal jàpp loolu mooy njëkk ci jàpp raxas loxo yi ñetti yoon ba fa ngay takk montor ba fa ngay takk jara bu mata mad mada topp mu galaxndiku talaasa ñetti yoon bistiyaakin ànd ak soccu la ca topp nag mooy galaxndiku ñetti yoon galaxndiku mooy da ngay seex ndox mi yëngal ko yàbbi ko wala mu tudd galaxndiku li gën nag mooy da ngay def sa loxo loo xam ne xaj na ci sa gémmiñ daal di koy seex benn yoon yëngal ko yàbbi ko muy benn yoon nga dellu ko defaat muy ñaar dellu ko defaat muy ñett soccu gi mu tudd la ci gën moom bala ngaa tàmbalee njàpp ngay soccoo ab bant mbaa nga jël borosu awale ko ci say bañ danga na ngaa yàkkamti galax ndiku tuur door tàmbalee jàpp teewul nag boo bàyyee bay jàpp ba tool ci galax ndiku nga jël sa baaraam fompe ko bañ yi mbaa leneen lu ñagal ci tam ba tey baax na mustanshiqan mbir muy aji salax ndiku mustansiran tey aji fiiru jiiman ñetti yoon kazaaka naka noonee salax ndiku mooy nga jege si ndox mi ba mu jege sa bakkan nga ñor di ko ci sag noo mu dugg ci biir bu fekkee da ngaa woor nga bañ koo soril ndax bu rëccee jàll sa koor day dog bu fekkee wóoroo na nga ñoddi ko bu baax ba mu sori ci bakkan bi dugal ko ndox ma mu dugg ca biir moo dul salax ndiku fiiru nag mooy nga jàpp ci say bakkan mel na koy ñandu wal ndox ma duggoon ci biir génn ci bitti loolu moo tudd fiiru lu ci nekk nga def ko ñetti yoon li ci gën mooy da ngay jege sil lu yem rek loo xam ne boo ko ñoddee ci sa bakkan mu dugg ci biir ko defee nag boo ko ñoddee mu dugg moo tudd salax ndiku nga jàpp ci say bakkan wal ko mu génn mu tudd fiiru nga jàpp ne am nga benn soxandiku ak benn fiiru di ko def ba mu ñetti yoon nag loolu moo gën mu xasawte mu raxas alwajha kanam nga maxal ya day ni ànd ak yaari loxo ya wal kullu te képp ci ñoom ñaar bi taslis nekk na ci ñett ñett du na cheyin ci dul ñaaw mu xalilan mbir muy aji xalil baaraami loxo ya nee na boo noppee ci soxandiku fiiru raxas kanam moo ci topp raxas kanam nag dañ koy def ñetti yoon te ci raxas bu njëkk ba ci ngay teewloo yéene ji mooy boo taamu di raxas raxas bu njëkk bi ci ngay teewloo jox faratay njàpp yi mbaa ci nga yéene yëkkati am toj mbaa ci nga yéene dagam loo julli ak lu na mel te ñu wax ñetti yoon ci raxas bi nag waaye boo raxasee benn tam daj te mat rek farata jàngoog ba ca topp ngëneel la bu benn matul dajut ba ca topp du mën a ñàkk waaye jàppal ne boo raxas tam daj te mat rek ba toppaat ci moom ci raxas ngëneel la boo noppee ci kanam nga ñëw ci loxom day joor te booy raxas loxo ba nga dem ba ëmb conc ya tuuti te it nga baamuwaat la nga njëkk a raxas ba ngay tàmbalee njàpp li ngi tàmbalee baaraam yi ba ci tikku jara yi na nga ko baamuwaat ci boo tolloo ci raxas loxo yi te nga xalilaale baaraam yi ndax xalil baaraam yi waru gar la dañ ko wàññi woon sax te suul si xaar muy farata ndax topp alimaamul xaw fi moo tax mu indi ci mu xalilan jële nga raxas loxom ndeyjoor jàll ci bopp càmmooñ te loxo bu ne boo ko raxas nga dem ba ëmb conce la tuuti ndax yamale ci képp képp dafa xaw a jafe wa masaxate mu masa arra sa bopp ba wa raddate mu delloo masaaga maasiha udnin mbir mi aji masa am nopp baax da taj jiidin ci gannaaw yeesarum ndox war a da goog rot na boo noppee ci loxob càmmoñ da ngay jàll masa bopp bi masa bopp bi dem dikk rek lay doon dem bi nekk farata dellu si bi nekk sunna li gën nag mooy nga tàmbalee ko ci jëbi fi kawar baaxoo saxe daal di bom ba ca doq ga nga ñëwaat nag ba ci jëbi nga tàmbalee woon dem bi nekk farata dellu si bi nekk sunna boo noppee ci bopp bi nga jàll masa nopp yi masa nopp yi moom boo tooyalee say baaraam ngay jekki-jekki daal di masa benn yoon rek bàyyi ndax jubluwuñ mu set bu jubluwoon mu set dañ lay wax nga raxas ko waaye nag bala nga am saa nopp yi da nga yeesal ndox yeesal ndox mooy nga asaat ndox mi yees def ci baaraam yi nga xam ne ñooy bëgg masaa nopp yi te bañ a doyloo tooy ba loxo ya tooyoon ci ba ngay masaa bopp rek yeesal ndox gu wax ne soo ko wàññee ci sunna yi kon sunna yi nekk juróom-ñett waxasale te mu raxas arra ji ni ñaari tànk ña za taxlilin mbir mi boroomu xalil naaw yet tawbatin mbir muy aji yéen ak tuub ilal jalil jëm ci aji màgg je boo noppee ci masaa nopp yi raxas tànk yi moo ci des da ngay jëkkee tànkum ndeyjoor te xalilaale baaraami tànk yi waaye nag xalil baaraami tànk yi mën nañu ko sopp rek bokkut ak baaraami loxo yi moom xalil ga benn mi warugar mbaa mi farata waaye baaraami tànk ni ko yàlla bindee dafa jege bu dee ci njàpp moom dañoo sopp rek nga raxas diggante baaraam bu ne moroom ma ci baaraami tànk yi bu dee cangaay nag moom farata la fa nga teqale ko foofu moom baaraami tànk yi bu dee cangaay moom farata la fa ngay raxas tànkum ndeyjoor nag ba ëmb ba ëmb dojar ya tuuti ñëw na ci tànkum càmmoñ def ko noonu kon nag boo ko defee rek jàpp maa ngoog wal xasu raxas ga li ya day ni ñeel yaari loxo ya maa amoor lu ñu digle la walaw walaw kaanata ak doonte nekkoon nañu taaxira tey ni di aj laab fii maa ci la nga xam ne rawoo nett li nañ ko nee na nag booy tàmbalee njàpp ngay raxas say loxo ba ci tikku jara yi moom dañ nu koo digal doonte loxo yi daa set wecc itam du tee rek sunna la nga raxas loxo yi ñetti yoon booy tàmbale bu dee ndab looy as sax bala ngaa tàmbale as da ngay dëngal ndab la nga raxas loxo yi ñetti yoon door a tàmbale as doonte loxo yi set na wecc itam day nu ko digal rek aw kaan wala doonte nekkoon na junuban di aji amee janaaba xul waxal ne aw mun tabihan wala muy aji yeewoo min mutlaqil manaami ci lu ñu jooyee li nelaw indal fuqahaa yi fooy dégg fiq waaw nee na nga amee janaaba ak nga yeewoo ci nelaw rek noonu nga xam ne de moo ci woon mbaa dara bañ naa say loxo taq na sobi mbaa dara du ca dara du tee rek booy tàmbalee njàpp moom dañ noo digal nu raxas sunuy loxo ba ci dikku jare yi ñetti yoon set ga du ca dara bàyyi ko ci luy nuru lu am sobe ak bàyyi ko ci ay nelaw yu kese yi nga xam ne say loxo taq ci ñooyee moo du tee rek ñu digal nu booy tàmbalee njàpp nga raxas loxo yi ñetti yoon aw kaana wala mu nekk saa tawab bu in ji boroomu jàppe mi naxarin ci ak deex aw siwaahu mbaaludul moom aw mu jadid wala muy aji yeesal am jàpp fii maa ci nga xam ne xakkaw nekk nañ ko maanaam boo doon jàppe ci deex mbaalu mel ne géej mbaalu mel ne ab déeg yépp ñoo ci yemoo du tee raxas loxo yi ñetti yoon ci bi ngay tàmbalee njàpp sunna la day def nag bu dee dex ga mbaa ndox mu bari moo xam ne moom mënoo ko mën mën laa dëngal ndox ma ba raxas say loxo su boobaa da ngay jekki-jekki as kon boo doon yeesal sam jàpp itam rek du tee ñu sàkku ci yow nga raxas loxo yi ñetti yoon ba tey noonu moo tax moo di aw mu jàddi dan ñe waxoo moom nag raxas loxo yi taxabudun taxabud la xalal mashhuri ci la ñu siiwee yekkoon dana nekk bi ñu yetin ànd ak yéene duuna zuuriñ ci loolu neen taxabud mooy lu ñu sant te xamuñu xikkama ba maanaam xamuñu la tax kon raxas loxo yi ci noonu booy tàmbali xamul lu tax ñu digal nu ko moo tax kon boo koy ne da nga yéene sunna si da nga yéene raxas loxo yi ànd ak yéene waale sunna sa ndax li ñu ko digal te xamuñu lan mooy xikma ba wa in xaraaka ndem gaar na la xadisun am toj min ba adima xasalta ci gannaaw ba nga raxasee tey ni yile yaar fi li ma dooy ci am jàpp fax si duxumaa na nga leen raxasaat nee na bu fekkee na nga doon jàpp ba yàgg fan njàpp mi toj nga war a tàmbaliwaat koy dutee sunna la nga tàmbalee waat raxas loxo yi ñetti yoon doore jàll du te nga baabuwaat raxas loxo ñetti yoon ci tàmbali wa xam ne ko digal rek wa taxsul dana amee as sunnatu sunna sa bil marati ci yoon wa xat dong zaiduhu ndoolenam ustuhibba soppeef na ko min duuni xalat ci lu njuumte nee na boo xasi raxas benn yoon rek sunna si am na la ci topp nag raxas ko ñaar ñett te dañ koo sopp rek waaye sunna si moom boo raxasee benn yoon rek dal na yoon waxoo moom nag la ñu atabar defu ko xalam la dabti daa tatxiirin fal tàmbalik laablu fil jaari ci ndox mi aji daw wa fil kasiri ak ndox mi aji bari doon naa ko wax léegi bu dee ndox mi wal di daw mbaa ndoxum géej mbaa dex xam daa bari daañu santaani sax raxas loxo yi ñetti yoon ba ci tukki jare yi waaye duñu wax ne na nga jéem a dëngal ndox ma mbaa bul jekki-jekki as maanaam daal foofu duñu sart ne bul jekki-jekki as da ngay jekki-jekki as ndax ndegam ndox mu bari la ni ki géej mbaa dex waaw kon da ngay jekki-jekki as rek moom waaye ak dëngal mbaa dara amu fa waaw bu bu doon lu mel ne biñ waar nag nga xam ne moom ñëw te dëngal te it boo jekki-jekki as say loxo daa tax xëy na dana soppi ndox ma kon say boo seet pexe yoon